wolof njaay day lii naan kuy dóora mën kuy saaga waaye teg na ca beneen baat bu am solo muy borom gémmiñ buy nàcc du wax jàmm borom gémmiñ buy nàcc du wax jàmm moo dal ñi nga xamante ne waa Benno Bokk Yàqal Sénégal ñoom ñoo tuddee woon Pastef wala sax ñoo ko ngénte waat tuddee ko ex Pastef ex Pastef nag ma ngay raj lépp lu ñu tegoon ci ndëgg sërëx wala ci ay pièges ngir rek bëgg rek faagaagal Ousmane Sonko ak ñi mu àndal cent millions de francs CFA yi nga xamante ne waa Italie defoon nañ ko waaye France ñëw na daal jël li nga xamante ne mooy raw gàddu gi ñu ngay wuti Espagne waaye wuti ci Sénégal fépp foo xamante ne patriote nekk na fa moo xam guur a jigéen mag ndaw foo mën a nekk ña ngay def cagnotte di dajale fonds boo xamante ne ngir rek accompagner Bassirou Diomaye fay ak kii di président Ousmane Sonko. ci élection présidentielle yi nga xamantene, Ousmane Sonko dana bokk Bassirou Diomaye Faye dana bokk ñepp dañuy bokk ba mu dess ki nga xamantene moy président Macky Sall. mbokk yi baye xel sen chaîne préférée sen njëriñ TV ñu dégtal leen cadre yi nga xamantene mom Cheikh Anne faré ca New York di patriote bokk ci parti bi di Pastef mi ñu dubbee ex Pastef te muy rajaxé lepp lu nga xamantene ay plan la. kii do robar kuy les patriotes ni na len ziar naa frère la Cheikh Anne. foo gis rek victoire am na ba pare da ngeen jëli carte électeur yi kontaan nañ ci waa France Italie Espagne Amérique partout diaspora waaye kontaan ci waa passif rek sama gars yi gis rek 2024 bi changement for force pouvoir bi passif téye ko Ousmane Sonko ci palais bi sénégalais yi li ñëpp bokk ñëpp jot ci ku feebar faju bu leen kenn stressé bu leen kenn defee tamit yàqkat yi li li li li président Ousmane Sonko di wax ne buki buki buki buki buki sango bukki deru deru ta te buki, bukki tu len ñooñu nak buñu ñu kenn yàqal lu Sonko wax lañu wax lu waxu waxu ñu sama gaay focus rek 2024 ta ngeen jëli carte yi jëli len carte yi jëli sa carte électeur moy nga génne détenu politique yépp ci biir kasso bi jëli sa carte électeur moy génne le président Ousmane Sonko ci kasso bi jëli sa carte mooy xeex injustice bi kon gars yi focus rek tam jëli carte. dunu tay mukk di am yaakaar ci président Ousmane Sonko ak parti Pastef bi mu àndal wala sax. askanu Senegal bi nga xamantene ñoko bëgg porter def ko muy 5 strategi président du Sénégal Ousmane Sonko mboolem stratégie nga xamantene Macky Sall ak ñimu andal tan nañ ko wala def nañ ko ngir rek tegal ko ay ndëgg sërax jéggi and ko askan bi ana lan mo tax ñu bëgg rek Ousmane Sonko du bok ana lan lañuy ragal ci ko xamne Ousmane Sonko da koy ngir ginnaw buñ ko xagne ngir mu bok koku daal di wuutu Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi lan lañuy ragal lan lañuy tit lan la ñu jël ba tax na ñu jël seen bakkan seen dund lépp

gis nañu tamit li nga xam te ne xew na fële ca parcelle Amadou Ba ñu daal di koy désacraliser ginnaaw bi ñu xañee waa fi ngir ñu amal seen meeting investiture foofee ca parcelle ca ACAPES gis nañu waykat yu mag ku mel ni Pape Diouf teew na fa gis nañ roi des arènes Modou Lo gis nañ tamit Boy Niang ñëpp teew nañ fa waaye taxul ñu am li ñu bëgg